gis ngeen Ami Wolof mii néew na mu def ci man vidéo te gisuma ko néew na fi moo defee live ak suma photo te gisuma ko ndax man ci internet bi lay nekk di seet suma bopp di seetaan suma bopp di ci jàng di ci kontaan di ci bëgg wóor na ma ne maa ko lammiñ fuuf maa ko dàq tontu fuuf waaye yàlla mi ma def góor def ko jigéen am ngeneen lum def suma digganteeg ami rusuma ko ngir yàlla moom de waaye rus naa ko ngir jëmmam bu leen fàtte ne nit su amee problème au lieu ñu xool li muy def neen xool nan la ñuy saafara problème bi ami dafa nekk xale ñu may ko jëkkër te bëggut ko loolu jàpp bopp bi mu dem Europe nekk fa ak ay doomam amul jëkkër moom kontaanut bégul ku bégul nag mënut a bégal ay nit moo tax su tayee fu bës mun a am rek la ami di dem su tayee mu aj Cheikh Cissé wax ci moom lu ne su subaa maam Ndiaye Savon la su subaa maam maam Mbaye moom ñu am coow rek te li muy wax ci nit ñi du ko xam du ko mun a seede dafay sos di fen rek di wax rek léegi nag lu jarul tontu mooy ku feebar emotionally mentally who is struggling with mental health that that person deserve help and assistance rather than criticizing or punching back at her maanaam ku am feebaru xel tubaab di ko wax mental health kooku su la waxee dara bul ko ko delloo danga koy muñal nga jéggal ko ami doomi saalum saalum la guneew xolof la bis bu wéroon ku am kerse la ku am personnalité la ku màndu la ku am jom la waaye feebar noonu boroom la ami su wéroon du togg lekk toog ci kanami nit ñi taal caméra bi di lekk léeg-léeg mu lekkee ndeyjoor léeg-léeg mu lekkee càmmoñ ami su wéroon du gis mbaaxu jigéen taxaw ne suma koor gi dog na dootuma moo mën a or fan yi parce que damaa gis mbaaxu jigéen ami su wéroon du toog di saaga ndeyam ak baayam ci internet bi nit ku wére di nag den ko war a jàppale te man xam nga dama bëgg jigéen ñi dama leen fonk te ami jigéen la wax dëgg yàlla jigéen la ñun ñëpp nañ leen ko ñaanal mu tane mu wér dof du ko soli sagar waaye kii dafa yàgg a traumatisé te moom nee na yaayam noonu leen ko defoon ci baayam moom ami mooy wax ba tay de maanaam moom wax naa wax a ba wax fu baayam ngoro yaayam yëpp ak nu mu ko takkee wax na ko wax na ba ne yaayam nobut baayam léegi nag problème boobu su ko nit amee dëgg-dëgg den koo jàppale moo tax man duma ko tontu duma defanteeg moom parce que wérul wax dëgg yàlla ñaanal ko yàlla ci mbaax ak yàlla ak barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci yàlla may ko wér kon daal na ñépp jàppal ami ngant ñaanal ko yàlla wér te jéggal ko xam ne moom nit ñi muy jàpp di aj di xas di sosal di tuumaal di fenal di saaga loolu mooy tax mu kontaan te doomu aadama bu nekk bu nit bëggee ci yow rek war bëgg moo tax neen ko jàppal ngant bu taalee rek ñu dem seetaan ko waaye nag buñ ko gënee puus ndax ñun dañuy fekk dof puus ko ba mu doppooral ñu dem war koo faj te du wér kon ami daal na xam ne bopp bi seddut yaram wi seddut te ci ñun la bokk amit dem na bay weddi yonantu ci waxam naan yonantu bi warta def lii yàlla warta def lii nangam nangam nangam ci laay fam su ngeen ko bàyyi xel di ngeen ko ci dégg te doomi jullit la ngeen xam ne loolu yëpp tey wut ko man de ami bépp fen boo mës a def ci man bépp sos bépp tuuma bépp xaste bépp saaga billaahi wallaahi tallaay baal naa la ko yàlla na la ko yàlla jéggal loolu moom maa ko moom maa moom suma bopp maa moom suma bopp duma la yedd ndax ku feebar neexut a yedd mais maa ngi lay wan ne ku am yërmande ci yow la ku am love and consideration towards you la ku am ñëwante ci yow la te ku la yéene jàmm la yàlla na la ko yàlla defal suma jëm ji nak mako mom lepp lo ci mën wax waxal lepp lo ci def defal lepp lo ci bëgg rek defal lepp lo ci def rek yalla nako yalla soppi yiw ta fay la ko def ko sa njabot ta may len jamm may len teranga may len barke may len wërseuk musal len aral len bopam fi ci adina ak ci alakhirah know that whatever happened Cher and other people like me loves you. We need you back in our society. Take good care of yourself. Watch after yourself. I believe everything will be fine sooner or later. But I'm praying it is I am praying to be sooner rather than later. Inshallah.